boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel fii ci Istikhama TV ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ci pàkk bu tedd bi nga xamante mooy di leen ziare a baax di leen comme niñ ko baaxoo defee saa suñu dëgmalee màggalu Serigne Darou Hassane tey di la 8 janvier 2022 ñuy amal li nga mooy suñu ziare ci ki nga xamante ne moo fi toog toogaayu Serigne Darou Hassane ko baaxoo defee saa su ne tey taxaw kenn ci membre yi commission bii di organisateur muy suñu yaay Soxna Thioye Ndiaye ñu ngi lay bu baax a baax soxna si di la ziar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ginnaaw bi ñu santee suñu borom tabaaraka wa taala di julli ci yonenteem di musulu saytaane di nuyu Serigne Abdou Ndiaye xaadir mi nga xam ne moo fi teew euh, xalifa Serigne Darou Assane di ko ñaanal mu yàgg fi ak mboolem njabootu Cheikh Darou Assane gépp rek waaye ak mboolem taaliba yi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci ziar bi nga xam ne moom la ñuy waajale bisu Cheikh Darou Assane bi ah bis bi nag di le 20 ak ñu fas yéenee dugg ak bisimilah rahmaani rahiim àggale ko ak alhamdulilah rabil alamin waaw jërëjëf suñu yaay soxna Jooy Njaay waaw laaj bi ne mi ngi jëm ci euh, organisateur bañ taxawaay la am ci bis bi nga xamante moom la ñuy amal muy ziar bi nga xamante ne moom la ñu war a ziar ci kanamu Serigne Abdou Khadir Njaay. waaw jërëjëf sunu doom organisateur de kenn ku ne xam na ne mooy boppi daayira kon organisateur ah ñu ngi ciy waaj waaj bu am solo ndax kenn ku ne xam na ne organisateur fii ñoo fi njëkk. ñoo fi mujj ñooy dalal gan ñi ñoom ñooy yor organisation bi ñooy sàppe ñooy maye ndox mi café gi yooyu yëpp organisateur bee ko yor organisateur bi daal yaakaar naa daal ñi ngi ci waaj boo xëy de waaj la ci bisu màggalu Seex Daaru Asan waaw jërëjëf soxna si waaw léegi ñu lay laaj ban taxawaay lañ am la moom la ñu waajalee màggal gi ak ban soññee nga war a soññ sa sa soxna yi nga xamante ne ñoom nga ànd liggéey bi ak képp koo xamante ne ab bi nga wala ab soppe nga ci biir kër gi ban soññee ngay def ci suñu mbokk soxna yi soññee bi de mooy fi nga xamante ne fi la njëkkee commencé rek mooy ci quartier yi nga xamante ne ci nga bokk ci organisateurs yi ci ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ xalaata soññi ñu fas yéene jaay li nga xam ne moom lañ jaayanteeg sëriñ bi ñu fas yéene koo matal muy cotisation bi képp koy ab organisateur la ciy soññi nga matal ko boo mënee ñaaraas sax nga ñaaraas ndax euh, ab taalibe loolu rek lay jëriñ surtout maa nag rawatina organisateur ñun daal organisateur yi jekk nañ jotu nañ na soccet di ko waajale fànn bu ne moo ci colin bi di ci doxin bi di ci liggéey bi di ci xalaat yi chaque jour ñoo ngi dajee di réunion ak xalaat nan la bis bi war a jage ndax bu jagee rek ñun la ba esaget ñun la kon fan bu ne daal ñoo ngi ciy xalaat ñoo ngi ciy waaj côté bu ne daal ñu ngi koy waajal incha allah. waaw jërëjëf soxna si ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yi ak leeral yi nga xamante moom nga ko leeral ak soññe bi nga xamante ne soññ nga sa mbokk soxna yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen bàyyi loo xel li nga xamante ne mooy bis bi nga xamante ne amuñu lu dul moom muy bisub Serigne Darou Assane muy le 20 janvier 2022 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyee ko fii ci Istikhama TV da ngeen di bés bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyi ko